salaamaaleykum mbokk internet yi nga xam ne yéen a ngi ñuy suivre ci seen euh, yi nga xam ne ñu ngi ànd ak euh, tey euh, ki nga xam ne moom mooy Abdoulaye naar ñu koy wooye les jeunes talent animateur war a waxtaan ak moom ci ay mbir yoo xam ne daanaka Euh, laal na mbiri société waaye tamit euh, coow lu nga xam ne am na fi fan yi jëme ko ci wàllum tiktokeur yi te ñu ci bari tamit découvrir ko ci moom mi di Abdoulaye Nar euh, jëme ko ci ministre de l'intérieur Antoine Diome ak ay ndaw yoo xam ne ñi ngi nekk ñi ngi ko fi nekkal balaa ñuy gën a yàggal dañ koy bàyyi mu nuyoo ñu dugg ci biir waxtaan bi bisimilah Abdoulaye salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen euh, di am mbégte ak contentement teew fii euh, képp koo xam ne ak ngi ñuy bàyyi xel rek ñu lay ziar bu baax a baax di la jaajëfal di ko sàkku ci yow jërëjëf. Euh, ci nuyoo boobu dañuy ñëw rek droit au but ci li nga xam ne moom mooy waxtaan bi nga xam ne bëgg nañ ko waxtaanee ak yow tey li ñu ciy jiital mooy li nga xam ne xew na fi fan yi te ñu ci bari découvrir ko ci yow ci vidéo boo xam ne njëkk nga ko def ngir xamal sénégalais yi lan moo xew waaye tamit wax ci ak ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, ñi nga bokkal TikTok bi boo ñu doon dikkaatal ci mbir moomu nga xam ne indi na fi coow que ministre de l'intérieur euh, dafay indi xaalis ak ay jox ko yenn ndaw yoo xam ne ñi ngi fii ci Touba ngir mën na mën nañ ko wooyee jënd yan leeral nga ñu mën a jox ci loolu pour ñu tàmbali. Euh, jërëjëf vraiment merci beaucoup ci laaj bu am solo boobu euh, vraiment nekk na mbir moo xam ni sax je pense que jërëtul ñu ci revenir parce que euh, benn vidéo bi nga xam ne def naa ko ci rek leeral na lépp nekkut loo xam ni comme par exemple lu jëm ci politique la walla loo xam dañu koy def juste pour yëkkati keneen walla suufal keneen non loolu mosul nekk suñu idée mosul nekk itam suñu jubluwaay euh, li tax ñu def ko juste pour euh, leeral la woon euh, leeral dafa am solo parce que avant lépp di xew ay nit ñi ngi ma doon woo fenn fu nekk naan ma Ablaye Nar dañoo dégg ñu ni ministre de l'intérieur Antoine Félix Diome vraiment c'est très bien ñu koy cité parce que mooy suñu njiit donc ah. nit bu la jiitee vraiment da am ci moom wàll comme ni mu amee ci wàll moom moo la jiite waaye moom yow it yow it moo la jiite kon da am ci moom wàll wax dëgg yàlla comme ni amee ci ñun wàll saa bu nu soxlaa fu ñu soxlaa dañuy koy fekki naka nooy itam ak lu mu soxla ci ñun koy am euh, c'est très bien itam ñu nit ñu am ci moom wàll ba saa bu ñuy wax di cité turam mooy njiit euh, li xew du dara lu euh, ay nit di ñu naan ñu ñoo ñu ne ministre de l'intérieur dafa yebal ay nit ñu nekk biir tubaa di kit ab xaalis di ko jox tiktokeur yi ngir ñu di ko waxal lu baax naka nooy di tëj seen làmmiñ effectivement bi ma wooyee di wax ma loolu ma ne leen loolu de bu fekkente ni am na yëgguma ko nag noonu itam duma ma ca wax parce que amaguma ci dëgg-dëgg lu ma leer na bu fekkente ne gis naa yenn ay tiktokeur ñuy def euh, vidéo di ko jëmale ci Antoine Félix Diome même bu fekkente ni gis naa ko itam waruma ci wax ba tey ndax lu war la ndax ñoom am na droit yëkkati seen kàddu wax ci lu leen neex du ma jékki-jékki dañ leen a fay wala dañoo wax naa am loolu sama yoon néew ci ba tey amu droit wax ci mais kañ laa am droit wax ci nag mooy bi nga xam si ne appel jug na ba ñëw ci man effectivement euh, yu mel noonu jip ñu ne ma da ngay def vidéo jëmale ko ci Antoine Félix Diome sant ko gërëm ko ndax li mu def ci dëkk bi nangam nangam boo paree rek ñu envoyé la 300000 300000 mi ngi nii sama poste boo paree ñu la ko yónnee automatiquement nag vraiment mu nekk lu ma métti nag sérieusement automatiquement parce que bu ma joxoon 300000 ma Antoine Félix Diome moo la ko jox may ma ko dama koy jël. ñu moo ko may comme ñi ma ko ñëpp yi may ñi ma Antoine moo la may 300000 dama koy jël ma paree nag su ma neexee ma sant ko gërëm ko. mais le fait que ñu ne la defal nangam soo defee nangam ba noppi ñu jox la 300000 francs loolu daanaka waxaale la ba noppi jënd loolu su ma ko defee itam wax dëgg yàlla euh, xool naa ba xool waaye daal bu dee am naa daray ngor waruma ko def parce que waxaale la defal nangam ñu def ñu jox la nangam sagal Antoine sant koo gërëm ko nangam ndax li mu def ci dëkk bi boo paree rek ñu jox la 300000. Hmm. vraiment loolu su ma ko defee te nit ñi nga xam si nii ñoo tax euh, mu soxla ma tey vraiment danaa am gàcce lool seen kanam suma ma waa ndaka nga mën a gisee ba tey comme euh, waxal ci Antoine lu baax euh, yow tamit nga dévier li nga xam ne moom mooy wax ji jëmale ko ci que ne Antoine Diome am na yeneen préoccupation yoo xam ne. merci waroon na ci mën a dox yu dut jël trois cent 300000 di ñu ko jox ñun tiktokeur yow da jàpp ne 300000 yi ñuy jox tiktokeur yi daf leen euh, ñoom am na feneen fu mu gën a yàlla que. mu koy jox ay tiktokeur da nga jàpp ne tiktokeur yooyu mérito wuñ ko ci jamono bii. merci euh, je pense que sax question bi. waaw d'une part mel naa ne répondre nga ci tuuti li tax répondre nga ci tuuti mooy. Mhm. Euh, préoccupation yi maanaam lu ko gën a jàmp dafa am. au moment où on lu maam actuellement may wax ak yow nii euh, Touba xam nga ni lu ëpp fukki quartier amul ndox fukki quartier ak juróom di moins amuñu ndox. Mhm. ne seen robinet ay weer ngi toq ndox génnu ci. te imaginez vous maanaam tiitoor nekk bii Touba tiitoor bu ne nga jox ko 300000 francs xoolal tiktoker bu nekk nga jox ko 300000 nekkul man kese nag. Ah. xam ngeen ñeneen ñoo xam ne bañ nan euh, man na maa cité Cheikh Abdou Nougoum moom mi nga xam ne sama xarit la noble course itam moom mi def na vidéo Thioune Boutique la même chose Ndiaye Lo aussi ñoom ñi nga xam ni def nañ vidéo ma xam leen ñoom ñu dégage seen responsabilité kon ni bokkuñ ci ko am naa droit toog fii nag wax ak ñoom daal ne bokkuñ ci. mais ñooñu est-ce que yaa leen influencé non du question influencé parce que man mënumaa influencé ñëpp man damaa wax rek man li ma soxal laa wax. Ah. ñoom it ñu wax la soxal. man sama génnee lay sama gis-gis laa wax ñu ñoom soo defee benn sorti boo xam ne dafa mel ni da nga leen a euh, lancé défi mel ni que ñoom yow ak ni nga waxee ci sa sortie bi mel nga ni képp koo xam ne daal euh, jël na 300 millions yooyu mel na ni tourné na euh, la doo ñi nga xam ne ñoom ñooy askan bi dafa mel ni nga leen a jaxase askan bi il fallait que ñu génn ñoom ñëpp jéem a leeral aussi. effectivement da ci am solo non leeral. Ah. leeral mënul ñàkk parce que mënul ñàkk mooy. Ah. képp koo xam ni dañ laa jox trois cent mille francs nga lekk kooku mënoo génn di leeral ni effectivement lekkuma wala nangam. xam nga lan mooy leeral. Ah. mais bu buñ tegee tuuma ci mbooleem kuy def TikTok ci dëkk bu sell bi di Touba. Ah. ak yaa xam anam boo koy defee. Mm-hmm. ñëpp askan wi yëpp maase ni TikTokeur yi fay nañ leen buñ gisee ay nit di def. yow nga xam trois cent mille ni mu neexee nga jot ci demande bi. Mm-hmm. ñu ne la defal nangam am trois cent mille francs nga gàntal loolu. ba noppi ni patak moom. dans ce cas nag bu nuy lim ñi nga xam ni euh, ci lañ leen fay dañ la ci boole parce que ñu nga wax te yow jot nga demande c'est très bien nga génn euh, demande bi du man du seetal sama bopp ni jot naa demande mais da ngay lancer appel li ngay lancer mooy. waxal euh, ki nga xam si ni moom la ñuy moom la ñuy indi turam. Hmm. nga xam si ni ci lañuy wax ñu def ci vidéo mu di Antoine Félix su ngeen defee vidéo ci Antoine jox leen 300000 génn xamal Antoine moom nga ne ko li ëpp solo jamono ji ci dëkk bu sell bi di mooy fexe ba trois 300000 francs yi ñu jëndee ko ay pompe bu ko defee askanu Touba kenn ku nekk mën ci gis boppam tiktokeur yi nag bi ma defee vidéo ba noppi automatiquement ñu baree bari génn nan ñàkkul ni mën nañoo gis ne lii ma def nii mooy li war ci ñoom ñu def ko mais nekkul loo xam si ni maa leen ko def wala bokk pour jaxase askan wi ak ñoom wala ñu jàpp ne ku noppi complice nga rek non xam nga noonu du complice sax ba tey du complice du complice ku noppi du complice li tax du complice mooy hmm. euh, affaire bi yëg-yëg la waaw mais yëg-yëg la xam nga yëg-yëg la yëg-yëg la complice maanaam ça dépend man ni ma ko yëgee man ni ma personnellement Ablaye Naar mooy wax man ni ma ko yëgee mooy mm. dañ maa jox ni ma trois cent mille ngi ni nga stand Antoine gërëm ko mm. yaa ngi dégg man ma gàntal ma ne ko 300 mille francs yi nga ma jox nan ànd ba ci daa joo xam ni dem naa fa bu yàggul problème moom mbaar la am mm. nga jox ko 300 mille francs yi ma vidéo ko. Ah, ko loolu effectivement daan ni mu ni ma waa baax na hmm. mais xam naa ne nit ku dëgg-dëgg moo nekkoon euh, li mu bëgg la mu bëgg mooy effectivement Ablaye Naar def vidéo ci kanamam teg photo Antoine Félix yoon daan ne Antoine maa ngi lay sant di la gërëm ndax li nga liggéey ci dëkk bi ay soo nangam nangam hmm. yaa ngi dégg loolu soo ko defee ba nopp maam question la boo xam da nga ko maam nit ñi dañuy jëkk laaj mooy lan moo xew lan moo xew mooy Touba na la nekkee ci jafe-jafe Ablaye na la à chaque fois ngeen gis ko mu nekk ci forage Ablaye na la à chaque fois ngeen gis ko mu nekk ci euh, bëgg-bëgg dëkk bu sell bi Touba yu bëree bëri yoo xam ne war nañ koo jooyante ci dëkk bi ba léegi saafaroon ko Ablaye na def photo Antoine rek Antoine mi nga xam ne moom mi euh, su jugoon rek lu bëree bëri mën naa saafaru ci biir dëkk bi Ablaye na di ko sant ak ko gërëm léegi lan moo xew ñëpp danañ laaj loolu ci jamono boobu nga xam ne itam ñu bëree bëri ñi ngi doon wax di lam-lam mi naan tiitogoy Touba yi fay nañ leen mais Ablaye naan su defee loolu effectivement ku am xel da xam ni kii nag lekk na ger te ku lekk ger nag jërul nga di ko topp jërul nga di ànd ak moom ci dara parce que xam tax lépp lu muy wax dangay jàpp ni lii du nekkul dëgg ci moom parce que képp koo xam ne alal da lay jënd rek mënoo wax lenn doo xam ne ñi dañ koy dégg te ñun fas nañ yéene lépp lu ñuy def ak lu ñuy wax dañu nekk mu xool mu nekk suñu coobarey bopp nekk itam loo xam si ni moo gën ci askan wi nga xam ni moo tax ñu soxla ñu tey loolu da ci am sol di ko mat a bàyyi xel. loolu am na euh, tamit euh, yenn ci ay tiktokeur yoo xam ne yaa ngi wax ne li euh, Antoine Diop jékki-jékki def vidéo ngir sant nit fekk xamoo ci moom loola mais buñ jëlee ci beneen côté bi am na yeneen tiktokeur yoo xam ne. wax nañ taxawaayu Antoine Diome fii ci Touba ci ay daara yoo xam ne mi ngi leen di euh, taxaw wala jafe-jafe daara yoo xam ne bañ ko jotlee ci moom hmm. euh, taxawu na leen ci est-ce que yow tamit jafe-jafe yi nga xam ne am na hmm. mënoo a jéem jëmaam am approche ngir mën a xool ba xam dina ko faj wala déet demandé naa ko rek ngay demandé naa ko noonu du question jékki-jékki demande naa ko ah. ki ma woo li ma ko wax mooy ndax Antoine ah. yow ma ne ko ki ma woo dama li ma ko xamal mooy ndax yow Euh, xam nga li ma def ci dëkk bi mu ne ma effectivement. xam na ko gis na ko. ku nekk ci dëkk bu sell bi Tuubaa boo ne ko Ablaye Naar lim lay xam lim lay wax li Ablaye Naar mooy. day dox njàmbatu askan wi. ma ne ko pourquoi pas biñ la waxee ni Ablaye Naar def vidéo pourquoi ko samay vidéo ni ko Ablaye Naar la nekk boo ko jàppale jàppale ko ci lii bu ko nga jàppale ko jàppale waale askan wi nga xam si ne ñoo yeewoo ci dëkk bu sell bi di effectivement wax naa ko loolu. ma ne ko man ma def vidéo sant Antoine amul lenn lu muy apporter Antoine lu mu koy jariñ man mi tamit damay au contraire dafa may yàqal mais du ma jariñ est-ce yaa ngi dégg kon donc man nekkul ni def vidéo ñi def vidéo sant ko ci wàllum daaree yeneen yu ko nuru ñoo effectivement dañoo gis ni Antoine mi ngi liggéey loolu mais yàlla xam na ne man gisuma ko man jutuma benn yoon ni gis naa daal ji nangam nangam mais à chaque fois man naa ngi dem ci ay daara te nit bu koy dimbali ci la mu ne Mm. man bu fekkente ne bëgg nga maa dimbali njàmbat la nga xam ne maa ngi koy gëstu mu dem ci daara yoo xam ni suñuy donga ña nga jàng ci naaj mm. ñoo xam si ni tey buy taw donga dañuy tooy foo xam ni tey dañoo am jafe ndox lan ban jafe-jafe ndox la mu di forage bu paan lan moo paanal sax ñu ne benn pompe pompe bi nga yaakaar ne koppar moo koy jënd yaa ngi dégg mm. na ngay dimbalee ab lay naar mooy nga fexe ba ñooñu am pompe nga fexe ba daare alxuraan jooju am mbaar ak yeneen yu ko nur yaa ngi dégg man su fekkente ne ku ma bëgg a jàppale ci pexe moom nga ma def pour jàppale mi ak ku mu man di doon. mais pourtant bari na ay fii ci Touba bari na ñoo xam ne daanaka mi ngi euh, xamee nañ ko ak dëkk bi fi ay tànk tamit. non du ma ko weddi. Hmm. du ma ko weddi naka noonu itam Touba la dëkk. waaw ah. dëkk am na fi lu nekk am na fi kër. Ah. amoon na nu mel ak Serigne Saliou itam lépp. waaw ah. ngi dégg mais man du ma taxaw mukk balaa mi Antoine wala bonal ko wala nangam xalaatuma ko ci àdduna. Hmm. Antoine nit ku baax la taaliba Serigne Touba la comme ñëpp. Mm-hmm. yaa ngi dégg mais man damay wax ci li nga xam si ni moo ma soxal li ma soxal mooy. Mm-hmm. koppar bi nga xam ne ñu ngi koy jël di ko jële di ko jaar ci aw turam moo ma naqare moo ma te moo dul yoon. Mm-hmm. est-ce yaa ngi dégg. maanaam jaar ci ay nit. tiktokeur ak yeneen yu man doon naan leen wax leen ci diw jox leen 300000 francs vraiment te ki ne woo ñun xam nañ xel ni amul trois cent 000 yu muy may par kenn ku nekk. lu xam nga ko xam keneen xam na ko. waxal na ko rek parce que moom waxal na ko. non man moom vraiment bañ na ko ba yéen yéen a ne yéen a wax ne du ngeen. waaw ba léegi waaw ba léegi nag man du ma dëgg yàlla. moom ci li mu wax mooy bu leen tooñ benn Antoine Diome wala. benn ndaw Antoine Diome moom seen diggante yow ak moom la. non yéen ak moom la. non man ki ma woo d'abord lan seen seen euh, relation ak lex la ba pare. non man moom damaa bëgg na nga laaj ma effectivement ci ci lii rek ci ah, li non xam nga tax parce que non génn na génn na ngeen def naqare na parce que koo xam ne la ci ni mu non nga waaw xam nga man problème mooy da ngay tontu ah. man man bu may tontu maa bëgg a tontu ku ma waxal xam nga dafa am solo yéen la man non man man la waxal mais ma man man lañ waxal ah. ma man effectivement jéggal naaw ko man jéggal naa ko mooy wax te wax ci man nangam wax parce que xanaa bu doon jéggal moom moo la war a jéggal parce que yow yéen yéen def ci vidéo ci moom wax. ci kan na ko moom sax cité na la ne yow yaa influencé nugum nugum waral nugum nugum la mu waral wax waxu. mais kon nugum xanaa dafa ñàkk nugum nekk artiste bu mag. nekk ci dëkk bi njëkk ñun ñëpp ci li ñuy def njëkk ñun ñëpp ci li ñuy def nekk magum jëmm man Abdoulaye Nar mën naa wax influencé nugum ba muy def vidéo. loolu si ñett lu xel sax nangu seen nga ay xarit ngeen. mais dëgg la toog waxtaan nga wax ko loo xam ne man na tax mu bàyyi lu mu loolu kay ay gis nga man Ah. ba ma dara def ba léegi maam vidéo bi affaire bi yëpp dégguma ma tudd tax photo kenn tudd turu diw daal ni moo ñu nax nangam xamal la man man ah. li ëpp solo mooy dafa am foo xam ne fu ma ta leerale nii diw moo ñu woo ak nangam ak danaa ko fa leeral yaa ngi dégg ah. man dafa am loo xam dama koy sàmm ba léegi li may sàmm mooy euh, suñu mbokk ñun tiktok yi nekk Touba ñun ñëpp benn lan on est ensemble ay xarit lan xalaatuma mu ko toog ci àdduna di yàq benn tiitu kër mais bu fekkente ne ki ma woo nag ci ru ah. Antoine Félix Diome la wootee mm. est-ce que may dégg ah. mais man am naa waa tax photo Antoine mi nga xam ne ci turam ba noppi nag euh, jaari tur parce que Antoine moo ñu jiite bu fekkente ni loolu du dëgg ah. fu nu mën a dem itam dañuy xam ne kii moo ñu woo ci turu Antoine Antoine boobaa mën na ci jël ay ndogal wala nangam ak nangam mm. xamal ko itam ni ko bu fekkente ne effectivement lii ci saw tur la ne muy dëgg lii nga ñu jox am na fan fu mu gën a fu mu gën a fu mu gën a fu mu gën a xaj fu mu gën a yell itam. comme yow comme yow nee nga doo tudd tur mais ki leen woo tam moom mu taxaw euh, en public assumé ne moom moo leen woo moom ci ay kàddoom li mu wax mooy xaalis bi moom moo ko lijjantil boppam moom moo am yéene ngir jox leen ko mais yéen fi fi ngeen yóbbu wax jeeg ñi ngeen ciy tudd ñëpp seen yoon nekku ci tamit. waaw xam nga xam nga li gën a li gën a doy waar mooy attardé wu ci loo xam ne vraiment euh, bu amee solo sax du loolu xam nga yaa ngi dégg maam jamono ji nit ñi à chaque fois man euh, li ma tàmbal nit ñi yow xam nga ma eh. dugal sama pastèque li ma tàmbal nit ñi mooy mm-hmm. saa bu nu ma gisee may wax ci lu am solo di wax ci ku am solo mm-hmm. gisee ak may dégg nga jàpp ne ndax amul solo non yaay wax ay wët yi man non dama li ma tàmmal nañ ci sama paas ak yeneen yu ma doon s'il vous plaît nañu waxtaan ci jafe-jafe dëkk bi bu fekkente ne am na leneen ñu mën a leeral ci lii. ñu am solo noo jafe-jafe dëkk bi parce que yaa ngi ci te xam nañ loolu mais tamit lii dafa doon euh, demande sociale boo xam ne nit yi bëgg nañu xam lu ne ci biir. Mm-hmm. tey yow da nga ci élément clé boo xam ne daanaka li ci nit ñi xam li ci bëree bëri yow yaa ko déclenché. il faut tamit mënoo taxaw fii ba pare wëlbatiku ne doo doo tontu wala da ngay wër-wëral teg alors que ki taxawoon ngeen di wax moom génn na publiquement assumé ba taxaw na sax lancé leen defi nañ yàqante loolu. tamit waaw effectivement xam nga moo tax may la moo tax may la bul attardé wu ci doomu solo. xam nga yàqante moom dëggante amatu dëgg du fa ji ba lu am solo am gis ne daf leen a def teraanga ngeen bëlbëtu nga moo tax may la loolu jërul man billaahi wallahi watallahi barke Cheikh Sidi Muxtaar du ma ci attaar xam ci attaar réew ah. billaahi mooy dëgg amu fa lu am solo amu mukk ci àdduna parce que lii nii xam nga ñoom ñoo koy seetaan ah. ñi nga xam dañuy abonné ci man di ma topp ñi abonné ci yéen di leen topp afam mm-hmm. ñoo xam si ni lu am solo la ñuy bëgg di si gis seen chaîne yi xam nga tax non non ay leeral ci lu am solo billaahi ci lu am solo xam nga tax parce que ni nga ko waxee dafa leer nan yàqante xam nga nan yàqante ça veut dire mooy lu am solo amatu fa na ko ne lu rafet noppi na faa feeñ te man ci lu ñaaw xalaatumaa ci lu rafet barki Seex Ahmadu Bamba du ma yàq mbindeef ba ilaa yawmi diini du ma masa taf photo doomu ma di wax ci moom lu ñaaw du sama di xalaatuma du ma dundee noonu seen relation naka la naka la demee woon ma waa nam demee woon ba tey parce que moom laa jàpp li tax ma ne moom laa jàpp mooy jamono bi moo xajam na non xajam lu koo xajamal hmm. kan moo xajam ah yéen ci seen biir xanaa non non non ba tey man moom wax dëgg yàlla parce que moom ci li mu wax defal na leen teraanga yéen ngeen génn wax leneen lu bokkut ak li taxoon muy def man nan laa wax moom tamit génn euh, réagir ci benn ton boo xam ne daanaka doy na waar waaw doy na waar xajam am na doy na waar ah. waaw moom defal nañu teraanga loolu la wax. peut-être ñun de wax dëgg yàlla ba mu fekkente ne defal naa ko teraanga man duma ko wax parce que ba ma ko defal teraanga man ak moom la woon teraanga ju ma ko mën a defal. xam na xam naa waaye man duma ko wax. Mm. xalaatuma ko mukk ci àdduna. ndax sama diggante moom ñoo ko séq lan séqoon démb itam la ñuy séq tey jii xam nga xam lu séq tey. ba tey mësuma yëkkati kàddu gu ñaw teg ko ci moom te du ma ko def ba ilaa bi diini. Mm. sama xarit. waaw diggante bu neex waaw bu ratax bu ratax bu ratax bu hmm. ratax bu ratax bu ratax mooy ñun ñëpp ñu ngi déggante ah. ñu ngi gisante itam hmm. xam nga moo tax boo déggee Sëriñ mun Mbacké di daw politique yu mel nii moo tax ah. politique hmm. dafa baaxul ci lu baree baree bari maanaam anam bi ni politique des des fois maanaam système bi Sénégal di politique politique lu baax la ah. mais Sénégal ni ñu koy defee moo baaxul li ëpp solo ci politique bu Sénégal li tax nit ñi di ko daw mooy di wax lu dul dëgg politicien xam nga des fois da wax ñaan la kii waxee politicien lay wax pourquoi lan mooy waxee politicien effectivement mooy jàpp ni kii li muy wax dara du ci dëgg parce que moom la tàmmal askan wi hmm. dem ci dëkk boo xam da ngay diggee te yow lii ngay dëgg da ngay xam xëli ne mënoo mais nga dem ba toog war askan wi hmm. jamono bi ngay campagne da ngay wàcc ci suuf maire bi jaay caaf sax da ngay ñëw ba ci toog di ko jaay di ko di ko di ko saafla caafam bi hmm. lépp rek ngir bëgg xobam wi duus boo dugg mën ngaa dugg ci kër dem ba ca borom duus ba dugg ci biir duus ba mm. ne ko duus bi incha allah bi dinaa soppi sées bi tegal la beneen sées bu bees mm. xool googu dund ngay composé askan mais pourtant loolu lu mën a wëy la mais bu campagne bi jeexee fii campagne amaatul doo defaat loolu leen gis moo tax melokaan woowu nag politiciens yu baree bari di melokaanoo moo tax askan wi dem ba am léegi gis-gis bu ñaaw ci politique bu Sénégal mm. mais politique lu baax la politique du dara lu taxawu saw askan la ñuy jooytu seen ah. doole àggu fa nga saafaral leen mais politique bu Sénégal li ëpp lu ñu ciy gis mooy kii àndut ak man ngir ma ma bokkut ak man gis-gis léegi ni ma bëgg mu ànd ak man mooy dama koy jënd jënd mooy yëkkati koppar jàpp ni lii jomb na ko ma yëkkati xaalis bare bare teg ko ci loxoom est-ce que xam bu ko defee mu ñëw fekk si ma boo fekkente ne mënumaa def loolu ma yàq ko hmm. yaa ngi dégg violence bu baree bari itam di am ci ci réew mi jamono ji te politique sabab moo tax Sëriñ Muntaxa Mbàkke Bachir di ko daw di ko gën di daw di moins ci dëkk bu sell bi du Touba parce que politique bi am na doon demee rek kilifa yi sax ñëpp dañuy tàbbi ci biir ànd ak politiciens yi ñu ànd defar réew mi mais jamono ji politiciens yi kilifa diine yi nga xam ne am na ngor ñi nga xam ne wax dëgg yàlla am na lu ñuy seet seen diggante ak seen borom tuuti rek mais xajuñ jamono ji ci politique bu Sénégal xam nga li ma lay wax. ñu ci bari nee nañ nag li tax nga def li nga def pro Sonko nga de. man mosuma am carte. benn benn parti barki Cheikh barki Cheikh Sidi Moukhtar barki Ah. musuma am benn carte politique musuma bokk ci benn parti politique musuma campagnal benn parti politique ah. je suis animateur je suis animateur en 2019 dañ may fay may ànd ak ma ànd ak bi yor rajo di campagne ah. boobu maam ay affaire parti te pourtant ki ma doon campagnal boobu man ànd ak moom jëriñu ma amul dara hmm. gis nga man su ma doon defoon bay jàppale su ma dee politique bay jàppale hmm. maam di jàppale nit ki may jàppale dama koy jàppale ngir Touba mais du ma may jàppale man dama koy jàppale ngir Touba mais duma ma ko jàppale ngir politique parce que taxawaay bi mu am ci Touba laa koy jàppale yaa ngi dégg ah. kooku mooy Matar Diop te hmm. pourtant Matar Diop parti APR la bokk Macky Sall la àndal hmm. seen ay dégg mais Matar Diop moom laa gis ci politicien boo xam jënd na ambulance mais ko waa guy bind hmm. ay pompe nawet mu nangam mais est ce que dégg tey ma taxaw effectivement di wax Matar Diop nangam ak nangam nangam li may séq ak moom ci biir lañ koy séq amul daray politique du ci am xam nga Matar Diop itam ma wax la ci leen nga xam ko politique boole wuñu hmm. dañoo bokk seen Sidi Moutar bokk seen Baara mais ma nangoo jënd ci lu toll nii tarfataxay nii sama diggante ak askan wi mos ci ji ma yàq lu toll nii tarfataxay nii ñu bare bëri xamuñu ko hmm. yu bëree bëri dama koy def ci dëkk bi maanaam may ma dem ci seet nit war koo dimbali mu yëkkati alal jox ma ne ma jox ko mais na na yem ci suñu biir parce que effectivement xam na la mën a jur xam na ni man su ma génnee ni Matar Diop nangam nangam nit ñi jël wax yooyu dëkkale ko faneen fu mu fu mu doonul yaa ngi dégg maanaam moo tax ma lépp rek day wàll si waat ci anam bi ni politique fii Sénégal am na nu doon demee rek wax dëgg yàlla lépp mën naa rafet kenn ku nekk man ngaa far fa ngay far ci jàmm ak salaam vraiment waaw euh, xam naa ne dama ko bëggoon a def sax mooy waxu Baye assan bi nga xam ne wax na ko kenn joxu leen dara yéen da ngeen a a def seen euh, yéen a bëgg a créer buzz kenn joxu leen dara aussi waaw Baye Assane Mesere moom sama xarit la. sama xarit la. Euh, wax jooju itam njuumte la woon ci moom man xam naa ne njuumte la. Hmm. ndax boo xoolee paasam jéggalu na ko jot nañu itam jéggalu itam. man xam naa ne njuumte la. Hmm. li tax mu doon njuumte mooy ba laaxi bëgg mu ci woon revenir parce que lépp lu jënd dañ ko pare Baye Assane xam nga day sama xarit yàlla sedd na ko dañoo jege trop maak moom dañoo jege xarit yu jege lan dañuy diggante tout le temps. Hmm. yu baree bari ñu di ko séq mais xam naa ne fi irri amee rek mooy le fait que mu. woo ñu d'abord ba noppi renseigné wu ñu renseigné wu ci ñun. maam laaj ñu lan moo xew. Hmm. yaa ngi dégg peut-être diglu na beneen version ci beneen camp mais bu ñu diglu woon suñu version day am ñaari version yépp su toogee dana xool effectivement léegi fan la dëgg mën a féete hmm. mais xamul dëgg ji fee dëgg ji fee rek xam bu toogee wax rek daana ñu nekkuñ ci dëgg hmm. ah ginnaaw ci public bi la ko wax ak lu nekk nekk xel da ngay génn ci public bi nag wax sax moom public bi exemple la wax waaw loolu daal mooy mais Baye Baye Assane moom wóor na Serigne Touba sunu xarit la déggante na téléphone ba lépp jeex wax dëgg yàlla te nañu meloon tamit dañuy wéy di mel ba léegi incha allah euh, jërëjëf ci ponk yooyu kon dañuy ñëw ci li nga xam ne mooy soxlas Touba euh, jamono bii nag euh, askanu Touba am jafe-jafe ndox chaque jour ñu ngi lay gis nga ciy dox boo ñu mënoon a leeral li nga xam ne moom mooy jafe-jafe yi nga xam ne moo am ci Touba ci ndox ñàkk ñàkk a taxawu ñi nga xam ne ñooy autorités yi la wala maaw ku ne xam ne maaw rahmat moom lañ ko dénk euh, état tamit euh, indi na fi ñi nga xam ne ñoom ñooy waa OFOR terewul ndox mi ngi continuer di ñàkk lan nga yaakaar mooy jafe-jafe bi. Euh, li njëkk li may wax moo di. Hmm. Touba dafa war a nekk dëkk bu neex. dafa war a nekk dëkk bu neex neex na. Hmm. waaye dafa war a gën a neex. Hmm. sëriñ bi day wàcce na ko waa Touba. sëñ Muntaxa wàccoo na ak waa Touba sëriñ tubaa wàccoo na ak waa Touba Touba lépp lu gën ci dëkk fi mu ne jot na sëkk mu ñëw Touba mais dafa am lu ko tardeel li ko tardeel mooy yu baree baree bare ci ñoo xam ne yor nañ ay ndombal tànk ci dëkk bu seen bi Touba lu bari ci dëkk bi ñoo ko tagga témbeel barke Cheikh Sidi Muxtaar tubaa dafa des ak taxaw ci fànn yu baree baree bari hmm. Touba dafa des ay taxaw ci fànn yu baree bari hmm. est-ce yaa ngi dégg waaw Touba dama faral di wax naa ni màggal tubaa hmm. màggal tubaa dëkk bu mu xewoon bu dul Touba saa bu màggal rombé nga gis ak coppeeku ci dëkk boobu li yow est-ce que mën ngaa imaginer màggal Touba lan mooy ñaata mooy dugg koppar ci biir màggal gi. bis bu mel ni màggal Touba fan la am ci senegal fan màggal Touba rek la am. lan lay ñoŋal ci économique bu senegal particulièrement Touba. bari na bari na màggal tubaa daa war a romb rek. weer wa ca topp ba dañoo gàmm mm-hmm. nga gis ni effectivement Touba léegi xar kanamam soppeeku na nga xam ne màggal gi gët indi na ay jeexantal ci yokkuk Touba mm-hmm. mais màggalu 2017 gi ba màggal gii may wax ak yow ah. gan soppeeku ngay gis màggalu 2015 sax mën naa koo tàmbali ak beneen maanaam màggal day jàll dangaa nga dëkk bi day tax nga balewaat rek jeex na Touba amul jafe-jafe Touba non Touba amul jafe-jafe koppar responsabilité kan la xam nga moo ñu yor ndombal tànk ci dëkk bi rek sëñ Muntaxa li wàccu nag dëkk bi li tax wàccu nag dëkk bi mooy monsieur le maire moom li may yàgg wax ci samay vidéo ba tey moom laay wax ndigal moo ko fi teg hmm. Abdou su ma ko jëlee balaame ko damay balaame ndigal wala ma balaame kilifa gi ci kuulite lañ ko fi tege moom mu liggéey ak mu ñàkk liggéey moom la hmm. mais ki ma sañ a waxal mooy mairie bu Touba isi yaa ngi may dégg mairie bu Touba global mairie bi xam nga li gën a yomb te ñu war cee gën a taxaw mooy s'il vous plaît papier yi na yomb kayit yi xam nga xëy li ne ab dëkk ci am mairie hmm. askan wi liñ gën a soxla ci mairie mooy papier yomb mais waa Touba njàmbat liñ gën a am jamono ji mooy jafe-jafe kayit est-ce xam nga Touba nga gis ko am fanweeri at ba léegi amul kayitu suukar xam nga tax amu hmm. da cee tayel mën na ko am mën naa juguti ko mais bu demee ba mairie mën na faa baagante lu mat weer wala ñaari weer xam naa yaa ngi dugg ci biir maire bi ci ndox mi la mais continuer foofu. après waaw noo jeexal ci ndox mi merci waaw très bien. ndox mi danaat ci ñëw. mais dafa am lii dafa nekk point boo xam dafa dafa dafa dafa am solo. effectivement dafa nekk point boo xam dafa am solo trop moo tax foog mu duggee rek foog ma jéem a xuus leeral ci lépp. waaw ñu ci génne doo ko ñëw ci lenn. Hmm. xam nga foog ñu taxawaat. Hmm. même bu fekkente ni dañuy de dañuy décentraliser maanaam ñu ji la xool ay point ah. daaru xudóos. Hmm. ñu teg fa benn koo xam si nii. Euh, ci ñuy signé maanaam ci mairie bi lay liggéey teg fa benn point boo xam ne tey ku jugee garage Daaru Musti nga jugee Njaane nga jugee Kër Sëñ Sidi Muxtaar nga jugee Madiana mm. nga mën a ñëw ba Daaru Xuddoos mm. tey nga jur nga àgg mairie bu Touba parce que am na point bu fa nekk est-ce que nga may dégg mm. mairie mu nekk sori na imagine imagine ko kuy jóge Aliou war dem ba garage Dakar ci mairie bu Touba xam nga li kuy jógee ba buntu xonq ya maanaam ay kër gol war dem mairie bu Touba mais soo demee ba ak bu fekkoonte ni sax la ngay bëgg da nga ko am mën naa nekk mais la ngay bëgg doo ko am la ngay wuti doo ko am renouvellement extrait de naissance maanaam yeesal sa kayitu judd mën ngaa dikk tey mais noo ñëw ñu defal la ko tey ci journée bi mënul nekk wala boog da nga am ay lijjanti am koo xam ala ko àndal wala nga fay xaalis bu lu jeex pour lan hmm. mairie bu Touba kiy fay cinquante mille ak kiy fay trois cent francs ñoo yem ci mairie bi kot kot est-ce yaa ngi dégg hmm. war a ñëw taxaw ñu defal ko parce que kooku dafa am wàll ci miir bi ci miir bi la bokk ki fay 50 a ñëw rek ñu defal ko ba tey di lancé wàll appel ci ma ci waa askanu Touba hmm. nañu bàyyi à chaque fois bu ñu demee bu ñu laajee 1000 francs 2000 ak lu ñu yàkkamte yàkkamte ñoo joxe yeesal kii dugg 300 francs nañu yeccee ko suñu 300 francs juróom benn fukki dërëm yóbbu ko suñu àggee ñu jox te ñu koy defaral hmm. liñ la tax nag askan bi def loolu mooy bëgg seen kayit gaaw a génn boo joxee cent boo waroon a génn ci benn fan mën naa dem ba ñetti fan jàpp ñeent ah, kon léegi foog nga joxe 2000 francs pour mu gën a gaaw ngi wax lu général nag loo xam ne Sénégal yëpp la mën nga mais mais man Touba effectivement nag moo ma ñor moom ah te tubaa yooyu dafay non tubaa dafa war a jug ah. Touba parce que Touba bi daa wàccu ñun ba noppi xam nga Touba non Touba Touba ah. Touba sëñ bi daa wàccook ñun Touba sëñ bi daa te ñi fi nekk ñi fi nekk liggéey tamit ñu nekk ci bànneex bànneex la nekk ñoom xam na ne askanu Touba moo nekk askan bi gën a yomb a jiite barki Seexul Xaddim tubaa du jàmbat Touba duñ jàmbat hmm. lu metti métti dañ naan patt ak moom du jàmbat mais dañuy dund ay coono yu méttee méttee métti billaahi du jàmbat xam naa coono yooyu nag dafa jot hmm. maam ñëpp xam ko kenn ku nekk ndombal tànk la nga yor nga xool sa diggante ak sa borom xool sa diggante ak askanu Touba ndax lii mi ngay ñoŋ waaw wala déet boo fekkante ne ñëwul nga jéem a def pexe parce que maa ngi gis benn vidéo Abdoulaye Kharkar monsieur le maire di ko sant di ko gërëm hmm. mu taxaw ci benn agent jàkkaarloog moom di dal ci kaw am naan ko yow lan moo tax lii ni mu fi yàggee ak nangam ak nangam xamal ko ne ko yow ñaata dama lay fay weer sa weer ndax mas naa tardé pourquoi papier bi moo fi am nangami fan nangam ak nangam mais bi ma bi ma gisee vidéo bi li ma njëkk mooy ah kon peut-être sama njàmbat àgg na waaye bi bi loolu beesoo dama ne pourquoi li ay waa Touba di ko dund ay ati ati at Abdoul Ahad doog ca jot fan la tagee waaw ah doy na waar ginnaaw bi mu jotee itam ba noppi man maa ngi doon xaar fii ak weer wala ñaari weer ku dem mairie bu Touba mm. yu dugal fa papier même pas 15 minutes mu génn mais ba tey njàmbat loolu moo fi wéy di fan la nekk ak lan moo xew nañ ci dimbali ngir yàlla waaw. waaw dañuy continuer rek xam naa ne point boobu moom daanaka mbirum mairie beeg li ci ajo kayit yi nga xam ne ñu euh, nit yi ñu ngi ko fay soxla jamono bu nekk muy ami jafe-jafe. Hmm. loolu rek ma doon na débat. mais mënuñu ñàkk ñëw ci ndox mi ndax jamono bii daanaka. moo moo moo tiital waa Touba gi yëpp daanaka koñ boo dem ña ngay root. Hmm. Euh, lan nga ñu mën a expliquer ci loolu. ndox mi njëkk li ma ci wax mooy wan yi nii tëj nañ ko ba. Ah. wan yi nii tëj nañ ko ba. ñoo koy tëj. wan yi nii tëj nañ ko ba di sant day gërëm waa Reeteen. Hmm. ndox Touba. Ah. ñi ngi am taxawaay bu am solo ci ndoxam Touba. Hmm. maawu raxmati ah. nañu gën a jooyantiwaat seen toogaay. te bàyyi waat xel lu jëm ci ndox mi. sama xarit. demal mm. ko fay nekk dëkk bu neex a jiite. billaahi wallaahi taalaa te lépp war a yemb xam nga dañ la fanweeri forage ci ab dëkk. est ce que yaa ngi dégg. 38 Mbàkke Bawol gi ñaar forage am benn. 38 kay am na ci. waaw tamit nag Mbàkke Bawol gi benn forage la am. waaw na nga toog digg fa njàmbatum ndox. Mm. mais est ce que Touba ëpp na Mbàkke fanweeri yoon. déedéet ab jàngat la ñu xool ko. Mm. Touba li fi nekk ci ay forage ñu naan la forage yi doxul yee ñooy dox mais pour pourquoi doxul. ndax li ko war a defar dafay nekkul beneen ba ca topp itam mooy màggal tubaa day jub si am na quartier yoo xam ne ay xayra gi wala geneen quartier ñoom dañuy xam xel ni màggal Tuubaa gi moom seen revenu bi tax du bu doon benn màggal mën nga ne nangam mais màggal gu jot muy def la même chose sama xarit xoolal koo xam ne wax dëgg yàlla day daan dooleem amut lu bari màggal Tuubaa seeta na ndox yoo xam dañ koy maye. dañ koy maye de ba nopp ñu ko yaay ay cinquante mille boo wootee xam nga lu lay wax da ngay war a tax jox la numéro nga woote daal ni man la ndox laa bëgg ñuy la foo nekk ñu la nangam xam nga lañ lay lay de ñu la carburant nangam. mais effectivement loolu ñoom jox nañ leen ko ba noppi. carburant 15000 ak 20000 waaw non day dem màggal Tuubaa da ngay dem ba 50 bi moom fukki junni da nga koy joxe boo bëgg am ndox. ci koo xam ni yàlla seet na ko fukki jun yooyu moo nekkoon ci poosam mais dafa metti koo am na ñoo xam ne mënuñoo xëy. di xool seenu gànt duñu sëlmu. sëlmu laa wax sëlmu. Hmm. waxuma la sàngu de mais duñu sëlmu noo mën a def boo doon yeewu 4 heures du matin da nga jug wuti ndox ba sa gan saa bu yeewoo sël mu sangu sa xel doo ko dal yow mi yow mi yow yow mi ko dalal. weer na na kon nañuy dimbaliwaat askanu Touba ci màggal Touba saa bu jibsee forage yi. nañu leen saytu xool effectivement ana yan forage ñoo doxul. Mm-hmm. yaa ngi dégg. bu ñu xoolee forage yi doxul ba noppi. ñu xool ana lan mooy jëm ci wàllum tëj wa ak yooyu mm-hmm. xayre gi je pense que fi laa ko doon dégg. Eh, dem nañ ba xool daan ni xam ne wan bi dañ koy tëj ba dem gisoon nañ maanaam cible ba ba ne diw mooy tëj wan bi ba xam mais ñoom dañoo dem ba yàgg def ci pexe am na màggal Tuubaa koo xam ne dañoo wut ko fa toog spécial ci wan bi barki Seexu Xaadim mais manquéwul ndox est-ce que ngi dégg maanaam ndox mu neex moom ndox mu neex moom du manqué gars yi dañ naan ndox mu naqari mooy manqué ndox mu neex du manqué mm-hmm. am na ay plainte yoo xam ne bërki démb dalal nañ fi Mourtala Gueye mhm. bokk reeteet muy wax ne ñi ngi am plainte yoo xam ne euh, ñu ngi koy waaj a déposé ngir ñi nga xam ne ñoom ñooy tëjwan yi ak ñi nga xam ne mosoon nañu euh, mosoon nañu leen jàpp ci tëjwan yi euh, yow dégg nga ban xalaat nga am ci lu xam nga dafa am loo xam ne vraiment yëndut ñu koy dégg ci dëkk bi daal barki Serigne Touba ah. sa xol day naqari sa xel sa xol day jeex daal hmm. Touba yëndut ñu koy dégg yu mel noonu wax dëgg yàlla ay mbokki taalibe dong ne fi hmm. bokk Serigne Touba Xaadim Rasul ak Serigne Touba lim mu bëgg ci dëkk bii ay nit bàyyi seeni i dëkki maam ñëw ci Touba ngir bànneex ah. mais sa bopp tax ngay tëji wan pour lan hmm. lu toll ni màggal Touba ngay xañ ay doomi aadama ay junni junni doomi aadama hmm. nit bàyyi ko fu sore sore ñëw màggal si hmm. nga di ko xañ ndox moom sël moo ngir sa intérêt bopp pour lan pour jeexal rek ndax euh, mën nañ na temps bi jeex na euh, pour jeexal euh, lan nga jàpp ne moo war a nekk solution solution bi dama ko waxee léegi rek. Ah. Touba ku fi ndombal tànk ak fànn bu mu mënti doon. Hmm. saytuwaat ko d'abord. Ah. ak ku mënti doon muy mairie bi. Hmm. ndox mi. Ah. leneen lu mu mënti doon. Hmm. kenn ku nekk la nga nekk di ca liggéey. yaa ngi dégg. toogal nga xool sa diggante ak askan bi d'abord. yow xool ba xam askan bi seen xool seet na ci man waa war a déet. Eh, xam nga dafa yomb maanaam dafa nekk loo xam lu yomb saafara la. xool ba xam man askan wi. seen xol sedd na ci man ni may doxee waaw wala bu fekkente ne seen xol sedd seen xol seddul ci yow léegi nag nga joyantiwaat sa toogaay nga jug laaj lan moo nekk jafe-jafe bi lii moo nekk jafe-jafe bi boo xamee jafe-jafe bi nga jug nag wuti solution saafara si est-ce que ngi dégg bu loolu weesoo bu fekkente ni ñu baree baree bare fan leen teg seen xam-xam matiwu ñoom xam nañ xel nii fii ñu teg ñun suñ xam-xam matiwu ngir yàlla nañu ko fa seen xam-xam mate bu ko defee ñoom ñu toog seen wet mm. dend ak moom sax au moins di ko jàppale ndax ñàkk xam-xam doog ñàkk ci fi nga nekk ah. yaa ngi lool askan wu baree bare ngir sa intérêt bopp mm-hmm. dégg ah. kon ngir yàlla na nañu dimbaliwaat askanu Touba mm. Touba lépp a ngi fi Touba lépp mat na mm. mais anam bi ñuy yoree mbir mi rek wax dëgg yàlla moo sooxe nañu ko joyantiwaat mm. askanu Touba mën a yëg seen bopp ci dund gu neex dund gu feex ndax wax dëgg yàlla boo bëggee dégg dëgg rek Touba moom neex na neex na dégg waaye boo koy dégg ci jàmm tax ñuy wax waaye yu baree bari wax dëgg yàlla moom doy na jërëjëf euh, Abdoulaye Nar ñu dalaloon la fii tey euh, waxtaan yu am solo euh, dañ lay bàyyi rek nga tàggatoo su ko defee waxtaan wi. merci beaucoup vraiment kontaan naa. Hmm. kontaan naa d'abord ci dalal gi. waaye nag dugg nañ ci poñ yu bare bari yoo xam ne poñ bu ca nekk rek. Ah. xam naa ji nga maa suruxal fu ne. <laughs> waaye yàlla suturaal na ba yaakaar naa suruxuma. Ah. alhamdulilah. <laughs> soro fu ne soro nga waaye rek waaye waaw jeex na waaye poñ yi poñ yi nga yi lim yëpp ah. euh, dafa nekk poñ yoo xam ni mm. benn bu nekk jar na dut baaraam te fii ak saafara woon waruñoo bàyyi seenub liggéey ñu ngi koy rafetlu yéen a ngi ciy taxaw mm. Tuubaa ngeen ko nuru mm. ak yaatal yi nga xam ne am na solo ci dëkk bi kon s'il vous plaît maa ngi leen di ñaan yéen di leen insisté ci mbir yooyu la mbir yi nga xam ne ay points yi la nekk ay jafe-jafe ci dëkk bi dinañ ci dut seen baaraam baax a baax ñi ca nekk di ci yëngu ngeen leen ci gërëm ñëpp ñaan jàmm dëkk ci dëkk bu sell bi Touba ak biir Sénégal sëriñ Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg loolu tànd ak wér ak sëriñ Moustapha Mbacké Matilay moom sëñ si Moupa jërëjëf